jaajëfal ci topp bi ngeen di topp suñu programme Sunugal 24 euh, nañ koy defee euh, ñu ñëwaat euh, jàkkaarloo ki nga xamante ni nekkatul ku ñu présenté ci Sénégal donc rawatina bitim réew ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def ci askan bi ñu koy wax docteur Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba yàgg nañu waxtaan ak moom waaye chaque jour rek saa yu ñu waxtaanee ak moom rek day mel ni waxtaan bu bees ndax xam-xam bi muy wax ak li nga xamante ni mi ngi koy def di faj ni mu ko maîtriser. Eh, tey ñu ñëwaat fii ànd ak moom ginnaaw bi mu jugee ci ay ak benn benn benn événement boo xam ne si nii bu doy la eh, muy benn accident boo xam ne defoon na ko muy accident bu bu bu bu doy waar bu bu moxtal mm-hmm. ndax am xam ne si nii ñàkk nañ ci seen bakkan moom yàlla def eh, mu mucc ci boobu ba léegi génnul nag tey ñu ñëwaat ngir waxtaan ak moom ci loolee ak lépp loo xam ne si ni aju na ci ci ci faj bi muy faj ak activité bi muy def donc dañ koy daal di bàyyi mun nuyoo ba pare ñu soog a jàll ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi docteur ñu ngi maa ngi fay Mahfouz di nuyu libaas sama doom sama xarit audu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahman irahim allahuma salli ala sayidina muhammadin xaq ladayhi miqdaari alazim alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah hatta tarda lii c'est la renaissance vu l'accident qui s'est passé le 5 avril à 19 entre Dara et Déali c'était pas évident man ma toog ci kaw suuf tey mais alhamdulillahi rabbil alamin hayyu qayyum musal na ma xayu qayyum woneti na boppam ma koy sant nag jusqu'à entière satisfaction di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabam di julli ci 124 000 envoyés de Dieu particulièrement aussi ci 313 wala 314 message de Dieu yépp di sant yàlla sant boo xam ne sant ci azalil asal la ila abadil abad maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax moom rek moo yeeyoo sant yi moo am kese nag li ma dund man rek maa ko xam accidenté te apparemment le chauffeur roulait à vive allure pono je crois qu'il a osé freiner oto def tonneau daaneel ay garab def tonneau 86,5 mètres selon les gendarmes de Daara parce que dem naa defi sama déposition je les ai déglu naa leen ci constat bi ñu def ci laa xam sax ñi gaañu gaañu sur le champ c'est quelques minutes ou quelques instants après la ñu gaañu peut-être hémorragie interne lañu parce que chauffeur bi fu mu tëdd moom moo dox ba foofu selon le gendarme Diallo topp nañu trasam ba foofu ba fi mu tëdd la femme qui était une grande amie doon sax sama njëkkee bi may tàkk jabar moom la mayoon njëkkee mos naa wax ci émission que j'ai fait partie maintenant de sa famille une femme joviale pleine de vie pieuse moom jotoon na sax joxe numéro téléphone loolu bi ma delloo deux semaine après parce que choc bi métti woon trop aussi bi ma delloo défi de position bi laa dégg ne que jotoon na joxe benn numéro téléphone sax pour ñu wool ko benn sœuram selon les gendarmes toujours lu mel nii ngeen doon cinq personnes ñaar ñi ñàkk ci seen bakkan sur ñaar ñi am ay bras ñàkk seen loxo yow nga mucc sant yàlla bu wér la nga génn ci oto bi génnaale yeneen ñaari blessé yi surtout di bi basum basum bii di taxaw sama buntu kër di bind client yi a perdu ses deux mains cassure bokk il n'a pas perdu Dieu merci mmh. merci qu'il y a les chirurgiens de l'hôpital Dantec je leur tire mon chapeau xawma leen mais moom moo ko expliqué c'est des braves jeunes médecins de braves jeunes médecins bi ma ko demee nuyu ji Dantec j'ai laissé un mot là-bas c'est des modèles malade buy naan toppatoo nañ ko ba mu ne ma sax sama assistante bi xam aussi gaañoon ci poignet bi parce que dama ko ne ni ñu ko ñëwee Linguère ak ni ñu ko toppatoo c'est pas bon du woo naa ko léegi léegi téléphone haut-parleur ngeen déglu ni ko ñëwee anesthésie bi ñu ko def sax c'était pas ça moo ko wax mu ngi sentir ni ñu ko doon ñëwee te fiñ ko ñëw sax du noonu après après l'avoir tenu 24 heures sans la regarder hôpital Linguère il faut que ñu xam il faut que ñu wax lii c'est pas sérieux non assistance à la personne en danger hôpitaux yi dañuy xam ne ñun duñu ay mala il faut il faut qu'on se respecte dans ce pays ñu xam ne aussi du ñu ay structures privées c'est des structures publiques suñuy impôts ñoo leen fi teg on leur paye avec nos impôts ñi leen fal ñoo leen fal suñuy impôt la ñuy dundee même bi ñu bindee ne ordonnance ordonnance bi ñuy jënd aussi y a des impôts dedans yow ñu indil la accident bu mel ni bu grave à vingt heures dugg sa hôpital ba le lendemain nga koy doog a xool vingt quatre heures après parce que tu attendais quatre vingt dix mille francs il a fallu ma ni un conseiller municipal de Kanel bu ñëwoon dima nuyu si fi ma hospitalisé woon ak sama soxna ak sama secrétaire ma yónni leen ak 90 mille lañ ko commencé xool et puis dañuy jot xaalis bi rek commencé sawar ba am sax ku ko ku laaj foofu 20 mille parce que nee na moo ko joxoon drap fu mu tëdd te dégg ngeen ne léegi ne dal bu mu nekkoon sax amul drap xooluñ ko sax dibi basum fracture nee na nii la loxo bi def bi aussi damm ñëw 24 heures kenn xoolu ko hôpital de Linguère laay wax il a fallu mbokkam ñëw jël ambulance yóbbu ko dakaar yow nga toj xawam nga damm 24 heures kenn xoolu la ñu def la ci ambulance Linguère ba dakaar avec les secousses ça c'est avant jee bi di am ah. avant avant bébé yi incendie bi bi rey bébé yi et puis c'est pas seulement un hôpital pareil hein c'est presque dans toutes les régions mala lañu jàppee nit ñi fii surtout fi tukulóor yi nekk tukulóor moom ak pël yi moom mbaa ay xar lañ leen jàppee on les respecte pas il faut que ça s'arrête dans ce pays ku def lu baax ñu ne def nga lu baax ci waa Dantec laa njëkkee ils ont été élégants professionnels est-ce que xam nga ñoom ñoo xoolal avant mbokk dib yi di ñëw sax ñoom ñoo doon sang basum médecin buy yóbbu malaadam ba ci biir douche di ko sang ñii lañu soxla mais dans notre village ak Kanel jigéen day ñëw di bëgg wasin nga dégg du sax sage-femme xaw ma nu mu leen di tuddee nga dégg nit kii di matu nga koy nga koy saa ngay naan bi bi nga koy def de dafa neexoon mais il faut qu'on respecte les gens c'est quoi ça lan la. doo dem ci bureau yi nga soxla extrait naissance mu gaaw doo soxla casier judiciaire mu gaaw doo soxla muté sa oto mu gaaw doo soxla sa plaque oto mu gaaw doo soxla sax di fay impôt mu gaaw c'est quoi c'est quoi ce pays là lan la pourquoi on se respecte pas ku fi yor oto daal di dawal foog ne moom moom nit ñi yow on vous loge avec nos impôts on vous paye avec nos impôts. Vous mangez avec nos impôts. Vous buvez avec nos impôts. Après, vous, vous nous faites chier avec nos impôts. xam nga c'est pas sérieux. Euh, eh, L'accident s'est passé man li ma ni ma ko njëkkee rek c'est la renaissance. est-ce que amul leen lu def ci ginnaaw. et puis xoolal le de 86 virgule 5 gis nga image yi man ma bëgg génne benn waaye Bassoum man je crois qu'il était mort heureusement qu'il a saigné d'ailleurs il saignait de la de la de la ma na man pour man dee na ma yuuxu Bassoum ne ma laisse yaa xam samay secret yaa xam samay code bancaire tou tu peux pas me laisser à comme ça à mi-chemin tu laisser may wut pour ñu may ma benn ñu abal ma paaka oto yi abal leen paax ma dagg seen sécurité mu wàcc parce que affaire bi seere na ko kenn faalewu mu ñu ngi sàcc xaalis. donc oto bi dafa amoon xaalis. non xam man j'ai un grand chantier à Calais dama fay dem pour jox maçon yi xaalis mais y avait de l'argent restant xaalis bu bari gis nga malal bi sax dafa dajjeeku gis nga image yi gars yi loolu lañ doon et puis ça se comme ça du sama accident bi rek accident yëpp nit ñi bu ñuy ñëwee ci néew yi sax dañuy seen xaalis c'est pas c'est pas humain ça c'est quel Sénégal ça on est musulman ou on n'est pas musulman kenn faalewu ma et Bassoum il a ça de tête da ko doon nattal saa yi mbokkam naan jàllo nii la doon yuuxoo di li mu doon wax yëpp dégg naa ko sama loxo bi lii moo indi yi obligé ma ne comme man deewuma kay bu yeboo loxo damm je m'en ma duggal ci pressé ki bouton bi mu doog a génn mu wàcc dafa wàcc xam nga oto bi dafa taxaw nii pneu yi féete nii moom donc ça a pris sa mu wàcc wadd mënuma laal fii pour ma ne les mêmes ma ne xaaral ko ma jàpp loxo gauche bi foo laa dégg mu dégg mu ne ma doucement ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin kon deewoo force bi ma ko doon yëkkatee moo ma dagg ci biir xam nga wax naa ko léeg-léeg sax balaa ñoo commencé dama doon diw xam nga def naa scanner gisuma dara mais man xam naa ne je suis hyper malade damay naan góom bi ma am tànk bi peut-être góom boobu sax ma nekk ci biir bi comprendre nga s'il faut m'opérer il faut que je le fasse parce que je souffre demoon naa nag ba am dépression man nee nañ ma dem naa jaale ji par exemple la fille la femme la man xaw ma sax dem naa këram. je sais même pas non deux semaines je sais pas moi mais alhamdulilah xam nga ne woon naa la man gëwuma yàlla bi di reyee <laughs> yàlla bi di joxe dund laa gëm et il m'a pas déçu ma tegal la ci xam naa mooy xëyu waaye mooy mooy mooy mu mm-hmm. nga yaa ngi dégg rahmaana dunya wal axirati wa rahimahuma man kooku laa gëm et je suis fier d'avoir un Dieu pareil wax naa la or antenne li fa xew liñ ma wax tout ça c'est le processus léegi nga commencé c'est maintenant le début du boulot am loolu laa doon woy sax lu mot semaine semaines je suis pour sauver le monde xaw ma kan moo ma dugal loolu sama bopp je sais pas ça vient d'où je sais même pas ça vient d'où noonu laa doon yuuxu même à 4 heures du matin ci biir je suis né pour sauver le monde et je dis pas le contraire est-ce que xam nga reprendre naa alors que j'ai même pas mes forces mentales même d'abord waxuma sax physique foofu laa bëggoon sax parce que eh, accident bi ñu amee le 5 le 5 avril matul mhm. sax un mois aujourd'hui nous sommes le 30 waaw eh, mu méttee mhm. donc euh, nga continuer eh, di def di def sacrifice pour les clients am na ay comprimés yu may jël yu mel ni Clipal wala ay Tramadol dama koy double pour bañ a sentir benn douleur pour mën a liggéey. j'abuse mais parce que j'ai des patients yoo xam ne rupture de traitement baaxul ci ñoom ñiy faju hépatite nee naa la les quatre premiers mois yi may faj hépatite bugguma mu am benn rupture parce que dangaa agressé virus bi da doon nelaw nga koy yee nga yee ko pour rey ko mais mu bu retourner contre c'est fini. j'ai pas droit à l'erreur, le patient n'a pas droit à l'erreur. Je ne pas quand même sacrifier la vie de mes ñii di traité diabète du ma dem ba commencé di génne sucre di defar ay pancréas ma ñëw yàq ko boo jëlee une semaine de traitement ci foutu soo reprendre à zéro ça serait difficile là où traiter un mois tu vas le en deux mois ou en trois mois loolu laa di bañal ñii di faj hernie discale dama dem premier mois damay débloqué nerf bi génne ko ci disque yi léegi ni ñu ko génnee nii nee naa fii day tacc su ma la bàyyee noonu liggéeyuma joxuma la garab deuxième mois bi mais day enflé ci biir mun na nekk leneen je peux pas sacrifier ginnaaw mun naa def dara mun naa jël 15 mille boo xam ne mun naa ne nit ki demal jël garab bi uli joxal ma ko wala tijaan joxal ma garab bi ma def ko puisque <laughs> moom laa génnee ci ci accident bi je suis né pour sauver le monde man ci biir accident bi xaw ma lu xew je suis resté dix jours dewuma sel ma toog nii rek mënuma dem sel ma gis hémorroïde ci la musique foofu laa xam ne hémorroïde ndekete c'est dangereux foofu laa xam ne man ni may fajee hémorroïde en trois semaines mais man maa ngi sauver des vies nag ci dara sax gis naa ko ma ne mais man man donc man mënu woon ndekete dee moo tax jub moo am solo lekk lu lew moo am solo def naa bi émission ba wàcc alxuraan ba ne su may lekk lu su ma dul lekk lu lew yàlla na yàlla te nu le plus tôt possible yàlla na adduna bi yëpp teg seen bët ci sama sama cercueil gis nga maa ko ñaanoon na lépp leer léegi moom leer na su ma doon lekk ma ne lu lewut benn dërëm riba dee naa yàgg na. parce que maa ko ñaanoon. fan fan yëpp da ngeen defoon vidéo euh, di wax que ni dafa am ay lobby dafa am ñoo xam si ne nekk sa tànk tey di yàq di bëgg la bëgg la fii bëgg la fi jëlee mais est-ce que tamit bi loolu amee sa xel. non non non non non non non non fii du benn lobby xam nga lu tax. Hmm. oto bi ma nekkul mystique tamit. oto bi maa ko dawal ba daara. xam nga lu tax ma dawal ko ba daara. xam nga on était trois chauffeurs dans la voiture. Range Rover noir bii bi de jeudi soir laa ko fi jëlee à Dakar di yóbbu sama benn xëy bu tudd Mamadou Amadou lii di ko woni sama kër Touba parce que vendredi duma liggéey ñu dem fanaani foofu bi ñuy départ ma ne oto bi dootul ñëwaat ñu dem fanaan Touba vendredi après midi ñuy jël Cadillac bu jeune bi ñuy ñëwaat samedi le 3 on a travaillé parce que le 4 fête la ma bëggoon jël sama jardinière bi yóbbu ko bëgguma ko woon def aller retour Fuuta dafa sori te jigéen la. dimanche et lundi comme ça au moins mu am temps noppalu ñëwaat c'était ça parce que musuma jël deux jours consécutifs de repos léegi dimanche quatre après-midi laa bëggoon profité ak lundi bi ñu ñëwaat comprendre nga léegi nag bi ñu ñëwaat vendredi soir Cadillac bu jaune bi la ñuy la jël léegi bi ñu dem samedi ci ngoon Cadillac bu bleu bi laa yóbbu man oto boo amee benn fay défaut duma ko kii léegi bi ñu àgg Touba pone bi dafa peeroon bi ñu changé pone bi ci guddi gi des heures du matin la chauffeur bi gaañ ak di basum ñu ngeen ci oto bi ba 2 heures du matin ñu indiwaat ko defar ko yóbbu ko ci mécanicien bi defar ko ñu gaare ko léegi la laa demee ma ma ne Khadija ban oto la ñuy yóbbu Range Rover bi wala Cadillac je me rappelle même ki gaañu bi ma gaaree sama kër Touba mu ne merci pour la bon conduite barke alxuraan ma merci le Coran la ma wax le ban oto la ñuy yóbbu kat la bu bleu bi wala ranger bi xëy na dem ranger bi man fàtte naa ne woon naa bi di ñëwaat ñu jël oto bi ñoom dama yor benn kango parce que j'ai un poulailler à Kanel kango bi se pour les poulaillers léegi nag di bi da doon v chauffeur bi je l'ai connu le samedi 3 sa chauffeur bi doon. donc deux jours ngeen def. fin ñu dem bi ñu demee ñoom ñoo doon dawal kango bi. d'ailleurs Touba sax bi ñuy gaaree jënd rek laa ne comme Touba dafa naqari dawal dafa bëri charette jox ko ma nga xool ndax mën na dawal il a son permis nag léger ak yëpp wóolu naa te xam naa du fenkat aussi c'est un gars très sérieux mais bëgguma dugg ci yenn détails moom mission moo ko indoon xam naa il était fini même ay waajuram dégg naa nee nañu weer bi da ngay sant de doon sukura léegi le lendemain bi ñuy dem ñoom ñoo ma jiitu. comme man range laa yor ñoom kango la ñu yor man nañ ma jiitu tuuti ñu jiitum lu ma 30 minutes dañuy daw nag ndekete man maa ngi leen dab après Linguère après Linguère weetu Ranérou sax je crois ma dab leen man na ça va ñu ne ça va après moom moom moom moom gaañu moo wàcc ma gis basum di yéeg ma ne lan la mu ne noonu nee na tànkam yi dañuy tàng quoi ñu changé basum dawal Bassum Momane, il est posé, il conduit très bien, il est super bien. Zéro faute. Nous avons comme dafa tàng gis nak muy bori. Je ne comprenais pas lol. Et bëj bi moy metti tantôt ni ma bàyyi ko moom agul sax kanel ci hôtel bi laa ko bàyyi ma ne ko bul génn ci climatiseur bi comme il fait 47 degrés mm. comprendre mm. donc ñu lënd bi dem nañu kanel dimanche ci guddi sax y' a un grand artiste Saad Ahmed Ifra bu ñu invité woon këram ñu nekk fa ba trois heures du matin 3 heures 1 minute lañ ñu gunge ñu ñibbi Ouro Sogui dem hôtel. tout ça pour les mettre à l'aise parce que am na am na quand même fu ñu fanaan ak kanet ñu ñibbi nee naa léegi dama rusoon bi ñuy dem dama rusoon dama foogoon ne hôtel bi joxuñu leen ndekki ma yàkkamti pour ñu dem au moins ba marché Ouro Sogui bi ñu jënd yàpp ñu ñu ñu lekk. bi ñu yéeg ndeysaan laa décédé ndeysaan moom ma ne rus naa de ndekki wu sax mu ne ndekki naa wallaay ndekki naa du sànq maa la ko doon wax ma ne ah su ma xamoon duñ dem léegi dañu xaar ba naaj sedd tuuti mais comme libère nañu léegi nañ dem moo tax ma dawal auto bi parce que xam naa maay lay la auto bi di dawee peut-être man xaw ma ndax il est il est capable wala dañuy. mën mm. na xam moom peut-être kilomètre la tàmm mais oto yi maay la ñuy dawee. foo foo teg cent à cent soixante kilomètres ma dawal oto bi pour mën a dawal cent à pour naaj bi pour contrôler pone yi bañ a toj parce que dama remarqué ne remorque yi poids yi du daw bu naaj tànge ma daw ndànk dem ba daara wàcc comme man suma ma man xaw moon ndekete dama am des traces de diabète yi dama foog ne sax prostate la nekk li may saw lu bëri yëpp c'était diabète je savais pas moo wàcc saw ma ne ko acce yore volant bi léegi kër gi sedd na même pas 10 minutes. et j'avais trop de messages que j'avais pas répondu pendant deux jours ma ne ma profité ci hmm. donc xam nga ndogal la hmm. mais dogal mais dogal la mais comme ni ma ko. mais tontu kii yooyu. y' a pas de lobby. amul amul mais amul est-ce que amul mystique tamit loo xam ne. mystique non je. voilà je dirais pas parce que. Euh, non non non non mystique <laughs> kenn mënu ma atteindre mystiquement bu ñu ma mënoon atteindre mystiquement hmm. du ci du ci accident dee naa bu yàgg man sëñ Tuubaa laa dénk sama bopp ginnaaw yàlla génnante bi. Hmm. te xam naa gàcce lu ma te xam naa ki mu yónni ci man ba jox ma dara te kooku bi ma joxee deux semaines la ci mu gaañu xam naa bàyyiwuma au passage je remercie Cheikh Mourtala Mbacké ibnu Sëñ Fallou moo ma jël si ci accident bi léegi d'accident bi moom ak njabootam dama woo sëñ woo ko jotuma ko ma woo sëñ Abou doomam sëñ Abo dakaar la nekkoon de ci parcotement bi bi ma ko woolee nekk ko dañoo accident ma wax ko ñaari dee et tout ça dibi foofu la jëlee oto direct jaarul këram taggul jabaram moom yëg si na Matlabul Fawzayni sëñ Mourtalla la ci man sëñ ak doomam sëñ moodu ñoo ñëw ak benn taalibeem commercial sax je crois sëñ Modou te foo naa sax mooy sëriñu chauffeur bi en plus y a mooy ki desati. bi ñu jëlee carte d'identité jël numéro yi piis bi di xool am na ku dégg baatu rek ne xanaa du sëñ Modou gis nga Touba lañ ko suul fii moom je me rappelais jusque là je me fii moom commencé gu ma naax maa ngi commencé naax nag bi métti yi commencé man affaire métti bi maa ngi ko commencé daj à partir de minuit waaw bi ñu ma perfusionné rek laa commencé. man maa yóbbu sama bopp clinique man maa tànnal sama bopp clinique sëñ Mourtala taxaw ci bu baax même oto bi j'avais des amis man maa leen woo pharmacie Déali ki ko yor docteur Silla maa ko moo doon surveiller sax oto bi parce que gars ku ñëw gaari bëgg a sàcc dara ñu dool la torche ñoom ak gendarme yi je remercie beaucoup les gendarmes de de Déali de Daara je remercie les sapeurs pompiers yi je remercie les docteurs qui étaient là pour m'amener au premier soin, bien que j'avais refusé. J'avais refusé. Ils m'ont exigé, tant que say mut laa ñëwul parce que am na lu ma ne toogal ba say mut laa ñëw ma xaar ko mu ñëw jël si ma avec sagesse avec élégance et pragmatisme yóbbu ma hôpital Matlaboul Fawzayni moom sax dañ ko déposé këram doom yi ñoom yóbbu ñu yeex ma xool daal cinq minutes xooluñu ma ma ne nañ dem clinique laa bëgg wutal ma clinique bu baax qu'importe le prix ñu yóbbu ma ci docteur xam nga la tête nag il faut nit ñuy aussi bopp bi ba léegi feesul un médecin cest moom moo yor euh, clinique euh, Maam Jaara Tulaay Yaratullah Mariama. Un gars excellent. Excellent. Que je salue au passage. Ouvert. Il a compris mes humeurs. Il sait qu'il avait affaire à un fou, mais il m'a bien géré. Fefi Jean doon jeex il paraît ah ma ni dama ñibbi sama kër ñu nax ma encore yóbbu ba kër ga ma ñu il a souffert c'est pas mystique c'est Dieu c'est Dieu. Jamais 203, j'ai fait deux graves tonneaux. Il fallait le troisième. Je l'attendais. mais ci li ma foog. parce que yaa ngi naan am liggéey baa ngi soog a ça c'est même pas moi qui l'ai dit. ce qu'il a dit c'est plus fort que moi. c'est le processus. tu viens de débuter. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn du ko wax j'ai compris et effectivement ce qui me disait que tu es pour sauver le monde je suis né pour sauver le monde Mahfouz je te dis une je suis le seul au monde qui traite le diabète c'est pas beau entendre parce que bàkku la c'est pas aussi facile à digérer ou bien à croire mais yàlla moo ko def je suis le seul au monde qui qui traite les maladies rhumatismales comme polyarthrite rhumatoïde comme hernie discale, comme nerf sciatique, comme arthrose, comme rhumatisme. Parce que polyarthrite rhumatoïde ak rhumatisme nag bokkut. colopathie man rek maa lay jox benn garab léegi nga naan ko mu jeex. hémorroïde maa la koy fajal convenablement en trois semaines sauf ku wérul man ku wérul ci man sa prise d'emploi sa sa mode d'emploi nga respecté kooku y a pas de doute. dama doon wax aussi pour samay employé jaawale garab yi mais loolu moom ils plus droit à hépatite B je suis le seul le seul le seul au monde ñi ko weddoon ñëpp ñi ko weddoon ñëpp des cartésiens aujourd'hui ñu ngi may yónni seen patient Europe di ñëw Amérique di ñëw sant yàlla bu baax <coughs> loolu <coughs> excusez-moi parce que nag sama saka di foofu bés fi si na fi métti trop <coughs> na ma ni ñuy jégal loolu c'est une mission te yàlla nee na aoudu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahim alif lam mim xasiba annas an yatraku an yaqulu amanna wahum la yaftunun yéen ñi dina ay woyu gëm ngeen da ngeen nga foone di ngeen foone dama leen di bàyyi nii rek ma leen duma leen nattu avant d'avoir une chose il faut souffrir nit doom dara ci facilité mm. man daal li may def mooy di ñaan yàlla ñi ci génn àdduna yàlla tegal ma leen ci loxo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa te seen ginnaaw jig seen njaboot seen barke des ci seen njaboot ñi tëdd ñu jóg ñu mu gën a gaawee Bassoum mon frère tu m'as promis a pas une semaine que tu vas bientôt reprendre ton te plaît j'ai besoin toi à côté de moi vas-y mon frère lève-toi sois fort yow yaa ma waxoon Bassoum en 2006 au Gabon que tout se passe dans la tête alors bi ñu accidenté loolu laa ko njëkk wax bi ma ko ñoddee yóbbu ko ba fee ma ne ko tu ne peux tout se passe la tête tu me l'avais dit mu ne alhamdulilah man nekk ma lewul fenu ma ci tànk jàmm laa doon dem di saraxe di liggéeyal Sëñ Tuuba maa ngi faj ni ñi mosuma def defuma depuis 2016 la ko lu xaraam ah alhamdulilah tey daal dee wala dàmm ma ma ne alhamdulilah allah akbar alhamdulilah allah akbar ba oto bi taw j'étais conscient mm. oto baa ngi def nii muy may xalaat sama bopp ndax am naa mujj bu rafet moom xalaat li may dund yëpp alhamdulilah allahu akbar alhamdulilah allahu akbar li ma génn sant naa yàlla bu baax a baax a baax a baax hmm. e, gëm naa ndogal aussi mais lii moom y a rien de yaa rien de mystique mystique fu may attaqué man boo may mystique sax ci yow la njëkki tous les jours ma ne la bi xaydihim lam yanaalu xayra wa kafal muminina alqital lu la nit yéene boo koy def am na ci ay atat yoo ko def lu la nit yéene ci moom lay dellu te nag <laughs> nga ñëwaat rek nga ñëwaat rek ci donc liggéey bi eh, ni nga koy defee léegi pour pour ñi nga xamante ni tey eh, ñu ngi doon euh, la bëggoon a jot xam naa ne woote nañ ba sonn. oui pour Touba pour Touba pour le ah. moment. à Touba j'ai suspendu les mardis à Touba. jusqu'à nouvel ordre parce que mënatuma voyage. déjà li ma gën a métti mooy bi ma defee demee di defee déposition j'ai souffert cette nuit la dama def aller retour Dakar Touba ma noppalu tuuti ñu dem ba. dial yi foofu lañu defee déposition parce que ñemewu ma naaj bi nag comprimé may jël du naaj moom ma jigéen ne rek léeg-léeg ma dof cette gendarmerie efficace éloquente et vraiment disponible ñu nangul ma def sama déposition minuit maa ngi déparé fii je crois 21 heures ma def déposition bi ñëwaat mais foofu j'ai senti des douleurs yu ma mus yu ma sentiroon sax ci choc bi moo tax voyage moom mëntu ko mëntu ma ko donc waa Touba la ñu may jéggal mardi moom fekk 3 mois duma liggéey Touba te su ma naaree liggéeyaatee Touba aussi dina changer adresse bi ça serait chez moi maintenant au lieu de de daar Tanzil ci kër sëñ Mourtala sama kër Touba lay doon Aliya parce que nag ñun buñ fu ñuy dem nit ñi ñooy ñëw di yee nit ñi ay 6 heures du matin vraiment rus naa leen kër gi c'est à ma disposition sëñ Mourtada moo ko jox moo ko joxe à ma disposition mais intendant bi fa nekk ak doom Cheikhouna nga xam ne may nañ ko doctorat xam-xam boo xamante ni man ak lañ ko joxe dama leen rus di leen déranger nit ñi ay man 8 heures 9 heures si mais nit ñi fajar li ñuy fees kër gi dérangement boobu man dafa dis ci man dafa dis ci man trop trop trop trop trop trop Euh, Dakar, désormais, les mardis, on est à Dakar. On était à Dakar que mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Désormais, c'est mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Désormais à Dakar. 8h, 14h. su ma wàccee nag moom bu nit yi jeexee rek man wàcc naa même nit ñi bu ñu jeexee midi man wàcce naa. te bu bu nit def def loo ba yegg si fekk génn naa bureau yi. bu yeboo nga doon koo mënta doon. du ma la recevoir le lendemain am na solo bu baax. Mm-hmm. Euh, ci li nga xewoon ak euh, say activité mm-hmm. euh, xawoon na am tuuti gàllankoor waaye comme ni nga ko waxee rek def nga sacrifice. ma remercier tous les patients. tous mes amis tous mes amis. tous mes parents se sont levés tout Kanel ñëw nañu wut si ma Kanel était en deuil mm-hmm. Kanel. était en deuil te incha allah li ma doon def benn daa def fukk foogoon naa nit ñi bëgguñu ma walla ils sont contre moi wala intérêt lañu ma bëggee mais je me lourdement dama foogoon nit du am unanimité ci dëkkam mais j'ai vu de de Thielul à Yirla de Yirla à Law ñëpp ma bëgg tout le monde était choqué kii warul dee kii warul dee non xam nga. ils, sont, ils fait des déplacements ba léegi fi may wax ak ni ay gan ak ñëw fekk nga fi ay gan aussi donc euh, je remercie tout ce monde particulièrement nag beral loxo di remercier sëñ Mourtala ak famiyam di jaale bu baax sama sër boobu ak famiyam bëgguma tudd tur bi par respect à son âme mm. maa ngi jaale ay doom C'est dur, là. C'est dur. C'est qu'il trop de choses que je veux faire vis-à-vis d'elle. Mais c'est pas des trucs qu'on parle. Parce que n'a rien à avec euh, des vidéos, quoi. Mais di ñaax nit ñi daal nañuy nañu gën a jub te xam ne yàlla lu mu mënoon dem ak barke dem te da ko gën a mën mhm. merci du président la République jusqu'en bas merci xam naa fi may waxee merci à ce grand monsieur qui a envoyé des des chirurgiens des neurologues à mes cheveux à Touba et ces chirurgiens ces neurologues ont sillonné tous les hôpitaux de Touba de 8 heures à heures pour savoir là où je suis seize heures la ñu mujj gis merci beaucoup merci à ce grand grand grand médecin qu'on a envoyé gis nga ko sànq ci photo bi envoyé par euh, une énorme personnalité duma ko tudd ci vidéo yi Ami Chébé merci à ce grand monsieur à ce grand homme d'État qui a servi le peuple sénégalais qui a servi l'État sénégalais et qui ne s'est de cet État, qui est venu jusqu'ici me prendre. Hmm. am baax son chauffeur m'ouvre la porte protocole am moom dañ ko violé man lañu doon protocole dugg ak man ba ci structure fu ma war a defee scanner ñëpp di ko gis ci mbedd yi te waruñu ko gis ci mbedd un grand homme d'État jël xaalisam fay merci à mon avocat maître Kane et son épouse pour larmes tant merci à petite famille Salamata merci merci à Tidiane Khady merci Tidiane mon fils a su bien mes comptes tu un bon enfant moo tax tey du gis nga jënd naa ko oto cadeau du fekkee merci beaucoup et il n'a même pas 18 ans Ramata merci Acha, merci. Hawa Bilil, merci. Omar Samba, merci beaucoup. Adama Kamara, Gandra Houd, merci. Aliou Babajan, merci. Mokhtar, mon petit frère. Mille merci. Et ses amis, Sahel, Yaya Kulim Djoum. les grands imams, les grands marabouts, les grands érudits. Merci ma mère. Merci mon père aussi. Mahfouz, merci. yow bi affaire bi amee dafa mel ni benn principe de résonance bi yow yaa ko njëkk yëg sa yaram yaa ma njëkk woo ma ne la je viens de faire un accident j'ai perdu samay àndandoo yëpp gëm yàlla dafa baax parce que perdre sa mère dans un accident nga gëm ni ndogal la mënoon nañ ñëw laaj ma lu rey seen yaay bien que xam nañu accident la ñu def yëfu dof ils ont xam nañ ne man duma dof bay reyaate chapeau ak fi ñu màggee nga xam ne foofu la mort naturelle n'existe pas jëkkëram di ko gëm yàlla monsieur Diatta chauffeur bi c'est dommage je connais pas sa famille nee naa la c'est le même jour que je l'ai connu dafa ñëw ne ma Diallo garabu kolopati laa bëgg 10 000 la yor ma ne ko loolu du ko fi am muy dem mu ne ma yow dama la gëm dama tëdd guddi seetaanuma la am 10 000 ñaanam ndax ma ñeme nit ñi te aussi nit ñi ñeme man fu ma fu ma ñëw nit ñi daw xaw ma lu ma dal man daal un ngi nii xaw ma lu ma dal te damay feebar fii day tàng nii nii nii man daal xaw ma lu ma dee sax mu wax yërëm ko mu ne un mois ngi nii liggéeyuma ma ne ko loo doon liggéey mu ne may yenu ciment ma ne xanaa moo métier mu ne ma chauffeur laa waaye kenn du ma jël ma ne ko demal jël sa saak jël naa la nii la ñëwee jël sa 10 mille may naa la garab sangat cat may naa la désenvoûtement te naa la faj même colopathie bi may naa la ko sax yóbbu lépp ma ne ko garabu ca 35 000 ma ne ko désenvoûtement 30 000 ma ne ko garabu colopathie 15 000 ma dem jëli saagam muy ñaar même bu ñuy añ mënul añandoo ak nit ñi ñemewul xool nit dinaan boppam day xaw ma bëñam day metti même Touba bi ñuy defari pneu bi bi mu ñaata xaw ma lan la soxloon garjee bi la wax mu ne mu ne ma wax demal nga neew ma ko nii ak nii naa ñemewul xool nit man damay naan sax est-ce que du ci rétroviseur bi la gis rek tiit <laughs> parfois damay naan ñemewul nit day def noir fumé te nii la lay xool cat nii nii la xool mais y a des gens yoo xam te ne yàlla moo defal yàlla na doon li ma foog parce que y des gens yàlla dafa leen soxla alaxira ñuy nekk ay jëwriñ yenent bi yàlla na doon jëwriñ yenent bi ci alaxira waaw donc nag ma sœur je mettrai ton nom dans cabinet médical j'attends une fille qui va naître dans deux mois, elle portera ton nom. Tu jamais gravé, je dis pas dans ma mémoire, mais dans mon cœur. Je ne t'oublierai jamais dans mes prières. Tu parti, mais on ensemble. Parce que c'est une relation relation bu dëgg la woon. On était même appelé à mourir le même jour. mais peut-être li may wax rek xam nga sarax dafa am lu muy def ci nit boo naroon dee tey boo saraxee rek yàlla day yokk say fan man sarax laa demoon defi moom kër sëriñ Touba bi may def foofu on avait prévu de mettre des arbres fruitiers pommiers bananes lépp lépp luy fruit à mon retour on avait prévu elle avait prévu de me mettre sous bio même salade marché dootuma ko lekk salaad bio la may defal des jus bio yi muy defar des jus de céleri de betterave on avait tout programmé ndeysaan sama benn mag <laughs> mooy naan jàngul dar nag mais moom loolu rek la xam ci français l'homme propose Dieu dispose mag boobu bizarrement sarax bu gën a rëy bi ma doon def sax moom la woon pour moom la woon heure accident bi mu fekk ci sance bi ma koy defal di ko tabaxal kër bu leen nay ci jëf lu baax man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun ku defal yàlla benn rek mu defal la fukk waaye aay boobu ma leen doon wax boo ma posé woon question yu mel nii lobi yi nanga nga lay naan inna alladina qaalu rabbuna allah alladina istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala taxzanu abshiru te laa gën a gëm aay boobu xam man amoon naa ay vigile maa leen maa xëy sax daq leen tellement damaa gëm aay boobu ñii dinaan yàlla mooy suñu buur di jëf lu rafet di jëf lu baax fu ngeen nekk ay malaaka lañ leen di yónni ñoo leen di protéger ñoo leen di aar bu leen tiit bu leen yox yoxi et la promesse de Dieu sera toujours là mooy le paradis te le paradis boobu man damay ñaan yàlla paradis ci àdduna paradis ci àlaxira maa ngi leen di sant di leen gërëm foogoon naa ne sax dama mën a waxee nii waaw boosté nga ma effectivement avant l'émission j'ai pris des des fortifiants j'en ai même abusé mais il fallait que je respecte le public qui m'écoute parce que am naa ñoo xamante ne même tout à l'heure bi ñuy dem jëli oto <laughs> Tidiane bi benn waaye di ma woon vi samay vidéo yëpp la enregistré ci téléphone des milliers de personnes yu samay vidéo merci pour cet amour maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla may xol bu yaatu ni ma ak accueillir sama patient di leen gën a nawloo xam nga man dama tàng de nature mais bonuma parce que man xaw ma mas laa dëgg laa xam loolu mooy sama problème te Gabon laa yaroo il faut nit ñi xam loolu la foofu laa màggee ñun xamuñu tricherie xamuñu yooyu loolu dong la mm-hmm. mais bonuma maa ngi ñaan yàlla yàlla naa nekk rek un homme vraiment hyper oyof ku ñëw a gis ci boppam mm-hmm. parce que aussi patient daf ko soxla attention nag xam naa fi ma doon waxee médecin yi li ngeen yi ñu doon recevoir ak man bokkuñ de man sama cabine privée laa yor man je né pour sauver le monde je suis pas un médecin je suis pas un docteur je suis un sauveur bokkuma ak ñoom donc un sauveur on doit le respecter doo ñëw di mu woon dara nga man ku ñëw woon ma dara nga ma wàccee la ko loolu dong la nag te beneen affaire dafa am ku ñëw narul wér boo ñëwee du ñu juboo il faut ngeen xam loolu soo narul wér du ma nekk sa xaalis da ngay toog rek fitina ñëw loolu dong la. maa ngi ñaan yàlla daal yàlla ma yàlla kattanal dindil ma mer mer yi mer mer yi ñàkk fayda yooyu de mer nag passager rek ay mer passager la boo mën a def ñëpp à l'aise incha allahu na ma ñëpp maa ngi sakku ñaan ci ñëpp nag ñaan wér ak sama sama sama sama ñi ñi ñi blessé wu ñu wér ñi gaañ yàlla xare leen àjjana eh, yàlla yemale fi ay yi maa ngi sàkku ñaan ci képp ku toog di ma déglu nga ñaaral ma gudd fan bu ànd ak wér bu ànd ak mucc yàlla mësal ñu ñëpp ci bët ak lamiñ ak euh, seytaan yàlla bu cat mu dara ci ñun waaw euh, maa ngi leen di gërëm fos euh, defal nga ma aussi teranga encore une fois de plus parce que woowuma la sax yooyu yaay ñëwee nga ne ma dafa jar nga def vidéo nga wax ak patient yi donc ce qui veut dire que tu tiens à ce boulot waaw que tu aimes trop ce cabinet léegi da ko def sa cabinet waaw nga bàyyi sa lépp ngeen bàyyi seen activité ngeen waroon ndogu correctement chez noppalu mais je comprends franchement merci beaucoup merci vraiment merci Mahfouz yow mënuma la fay te mësuma la defal dara nag ça fait un an un an qu'on est ensemble j'ai jamais regretté de t'avoir musuma la defal dara mais tu toujours le même Mahfouz tu n'as jamais changé jamais lu ma mer mer mer pourtant yow yow ti ma proposes que du bien mais da may bokkaat sax du ma la tontu wala ma tontu la ci mer musoo mer tu as toujours compris ce Diallo là yal na la yàlla fay yal na la yàlla suturaal yaa xam ni nga bëgg yal na la yàlla may lu kawe sa njort libaas kii papa la may wooye père def ma bëgg je vais te dire en direct lu tax ma amoon tuuti rétrécissement dafa am ku ñëw yàq sama xel ci yow ne lobi moo la yónni ci man gëwuma ko woon de te kooku dem ba wax ko Tijaan aussi loolu dong la mais tey laa la gën a jàpp fis dégg nga mu baax je le en direct man xamoon naa ne ay fen la rek mais il fallait que ma moytu et pris la peine de mettre ton numéro sur sur écoute ma wax la ko parce que man nag agent secret laa woon d'un grand président dégg nga moo tax bi ngay wax loolu man xam naa fii loolu fu ma mun a amee xam naa ko fi ma mënul am xam naa ko te alhamdulilah je suis bien protégé merci aussi quand je parle de protection je je remercie la gendarmerie de Kanel le CB Diouf pour sa disponibilité. Je remercie le préfet de Canel Diouk, un gars modeste, simple, convivial. Il n'a pas abusé de son pouvoir. du dégg nga message sax bi ma doon def sànq pour voir sama état de santé merci préfet merci mon frère su ma fi nekkee ci Rewmi c'est-à-dire dinaa fi tudd ay tuur yoo xamante ne ay kàngam da ngay naan mais jàll fu mu xamee ñi wala ñi fu ñu ko xamee vraiment merci daal merci wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin